ñu ñun ñëpp nag ñu gis ne lu rafet la lu baax la parce que jamono bi daal léegi kenn wératu waaw kenn waratul te des fois doole mhm. amul mhm. tax na yenn euh, ñi nga xamantene yalla may na leen peut-être ñu ñu ñu organiser li dañ koy organiser gis nañ ne lu ci ëpp néew si doole yi ñoo fiy gën a teew d'accord waa lu baax la néew du doole yi tamit bari nañu ñu ngi ñëw mais socialement daf ñu jàgg di ñu jàppale kon tay ji tamit li buñu ëndé duñu wax né c'est une grande première mais dañuy wax né lo xamné la da ko doon def diko defaat ndax yag na jappalé né du doole té nak né du doole ku koy jappalé ci faju tamit yow yaay ki nga bëgg ndaxte avant tout dañu né faju nga wër mo am mo ëpp solo wa fa faru moo gën faju wa té bo gisee fi ñu bari nak dañuy fagaru sa tay wa d'accord. Mhm. waaw faju jafe na fii faju jafe na fii parce que soo xoolee dëkk bu mel ni Tassette déjà ñu waroon nañu dépasser ay poste de santé waroon nañu am ay euh, centre de santé mais jusqu'à présent dañuy dund ci ay poste de santé y avait aussi des euh, dëkk yoo xam ne ñoo xaw a sori tamit dañuy am problème pour ñëw ci bërëbu fajukaay yi voilà. ok alors madame mhm. un petit mot en français. Moustapha Diom. waaw euh, waaw papa li nga xamante ne.

te peut-être moyens yi amul ah suñu demee ba gis koo xam ne daf leen ne néew leen faju docteur seet leen xam li nekk ak yéen yéemu ci jox leen garab ngeen jëlee ci wér gu yaram vraiment loolu ku ne mën nañ koo fay dina xaw a jafe pour fay borom xanaa ñaanal borom yàlla rek mu nekk jëf joo xam ne sunu maire bi moo koy def bi fi amoon su ma trompe 2016 nii la woon vraiment ñu rafetlu ko lool. Euh, defoon naa sax waxtaan comme nii ma doon ci remercier maire bu baax a baax euh, yàlla defaat ñu fekke ko ñu ñëw fi yéen nit ngeen woonu pour ñu wax ci vraiment ñu sommes très bien placés pour ñu wax ci mooy ne dañ koy sante maire euh, di ko ci delloo njukkal di ko xamal ne it li muy def d'accord mu ngi koy defal population moom mu ngi koy defal boppam parce que doomu aadama lu mu def rek ah, ku ca amit yaa ca ëppale parce que yàlla yow lay fay te dama yaakaar na su fekkoon ne njëriñ la ci wut pour boppam mën na ko bañ a def parce que li muy am am na koy pare kon li su koy def pour la population la kon loolu vraiment gis nañ lu rafet la kon li ma ci ñaanoo nit yàlla def na amaat na dama ko neen bu mu yem ci boobu su ko mënee continuer na continuer di ko def kon su ko defaatee vraiment dinaa ko rafetlu trop waaw lii moom vraiment ñu ngi leen di sant yéen ñi nga xam ne it yéen a taxaw ci wetam di ko jàppale di wane lii nit ñi di ko gis ah loolu it ñu ngi leen ko itam indiwaat itam euh, sant waa Sipan yëpp ñi nga xam ne ñoo wër commune bi yëpp parce que mën naa wax ci seen tur tant que chef de village waa Sipan ñu ngi koy gërëm ci lii ñu ngi ko ci sant parce que dina yónni sax ay oto foofu ñu ñëw pour ñu indi nit ñi ñu ñëw faju loolu it lu rëyati la bugg faj nit bi jox ko moyen de transport pare nga ñëw faj ko jox ko ay garab vraiment mënu loolu lu dul sant borom. Docteur Mamadou Ba pédiatre pulmologue la euh, tey dañ ñëw taset euh, suñu maire Tassette mooy Mamadou Thiaw. Mon moo ñu invité ci constatation bu muy faral di def euh, le plus souvent ma ànd ak sama natango professeur Serigne Abdouba, nga xamné sama sama xarit la xamné euh, pour la petite histoire man ak mom ñoo defandoo agrégation et euh, souvent bo len laajee ñi ñu andalon dañ wax les deux bas parce que on avait quand même eu la chance de nous distinguer lors de ce concours là bon donc je l'ai retrouvé ici et puis mom c'est un cardiologue nous avons fait des consultation foraine bu consultation bi la spécialité y compris le camion dentaire pour jël les ñi am problème en même temps on a eu quand même la chance de voir le PNT le programme national de lutte contre la tuberculose venir avec leur camion pour ramener de vous voyez consulter malade les pharmacies am nañ liste médicaments yi nga xam ne malade bi buñ ko ko prescrire dana ñëw fi ñu jox ko ko te buñ ci rencontré ay urgence souvent luñ lu ñuy def mooy dañuy fexe ba urgence boobu ñun ñu def soins yi nga xam ne moom moo war pour régler le problème ensuite ñu envoyé ko hôpital te dañ koy faral di accompagner sax ak équipe bi ba yóbbu ko mu ñu mettre ko dans de bonnes conditions pour hospitaliser pour faj ah, yow nga nga ci différence entre les région parce que demain, am la fondation le Sénégal te parcourir au mieux, du hall, consultations, nous consultation te rendre compte aussi une différence Une différence Matam dañ gisoon ne foofu dafa bëri woon villageois mais loolu ça se comprend parce que euh, dafa bëri ay ndox ak yooyu mais yeneen yëpp souvent dañuy am saan di am anémie manqué deret ba pare ñenn ñi am drépanocytose ñeneen ñi am lu problème lu problème respiratoire ah ak ñi am asthme et cetera et cetera ci adultes yi lu ñu constaté mooy euh, souvent diabète bi day ñëw tout le temps hypertension artérielle euh, am na sax loo xam ne mos ko wax parce que man dama demoon euh, souvent dama doon def ay consultation sama dëkk ma gis ne euh, nit ñu bëri daanaka seen poids demul noonu da ngay gis koo xam ne 45 ans mu am un poids qui est autour de 50 kilos mais beaucoup ko consulter ngay am surprise gis ne dafa hypertendu

loolu moo expliqué hypertension bi ni muy bëree noonu te xam ngeen hypertension euh, feebar boo xam ne feebar bu bon la parce que mooy joxe abc mooy tax nga def benn crise mooy tax aussi bu yàggee euh, dafay am lu bëri loo xam ne sa cër yi day bañ extra euh, léegi bu à côté de ça dañuy gis ne nit ñi aussi dañuy am diabète te ñu gis ne diabète bi dafay gën a yéeg mooy feebar suukar bi loolu aussi lu ko waral mooy lenn mooy nit ñi dañuy lekk loo xam ne dafa bëri suukar dañ bugg suukar ñami suukar et cetera loolu aussi il faut ñu seetaat bu baax ñu mën sensibiliser population yi pour ñu xam ne loolu aussi il faut ñu jéem a góorgóorlu bu baax di wàññi suukar bi ah ensuite euh, ñi nga xam ne dañ xaw a mag tuuti souvent gis ngeen ne dañuy jàmbat seen oom yi day métti seen ndigg li day loolu la ñuy wax ay problème arthrose articulation loolu en général dañ koy am dañuy am aussi ay feebar feebari rein xam nga nu ñu ko tuddee ci ci ci ci roño roño waaw te loolu euh, xam ngeen ne gouvernement bi tëral na programme bu am importance gratuité de la dialyse dans les secteurs publics eh, gis ngeen ne centre de dialyse multiplié nañ ko du téré liste d'attente bi nga xamné ñi wara def dialyse bo démé Dantec dina ëpp 6 mois 8 mois loolu lu ko waral moy parce que nit ñi euh duñ def attention té souvent amna ño xamné xam dañuy jël ay garab di jënd ay garab ci mbedd mi di consommer garab yooyu te xam garab yi souvent garab yu baxul la soit c'est des faux médicaments soit c'est des médicaments féminins soit même ay ay ki plante la jël di ki di nan ay reine de loolu yëpp parce que rein bi malheureusement moom mooy éliminer déchets yi nekk ci organisme yi boo ko chargé lu bëri bu yàggee dootul mun a éliminer correctement donc bu mënatul éliminer correctement rek après day day feebar bu feebaree nga am insuffisance rénale di dem di def ay dialyse te xam nga loolu kii bi à côté de ça aussi il y a des des souvent on voit des séquelles ay maladies yi nga xam ne dañoo defoon hypertension artérielle euh, def qui ñu am ay séquelles am séquelle bi dem na ci bët yi ñenn ñi aussi dañuy am cataract parce que euh, souvent bu ñu amee feebar wala ñu xaw a mag tuuti xam nga nu cër yi di wàññeekoo noonu la vision bi di wàññeekoo non la audition bi di ko loolu la lool yëpp dañ koy gis mandarga dañuy gis ñu am ay cataracte feebar mais de sorte que buñu xolé souvent consultation yi souvent ñu ci ëpp problème moy problème cardiaque problème arthrose ak problème cataract problème bët. mais professeur euh, su lu ñëwoo ko de mais seetlu nañ ni tuberculose dafa yokk tamit. wa ah, tuberculose dafa yokk lool c'est trop dire. parce que. euh amna programme yo xam ay programme yu xarañ la boo programme de lutte contre la tuberculose un programme de lutte contre le paludisme un programme de vaccination un programme de prise en charge des sujets vivants avec le VIH. Ces programmes-là, c'est des programmes où les soins sont gratuits. D'une la c'est que euh, pour ce qui est de la tuberculose nous avons avancer. avancé Nous avons avancé de plus en plus nous maîtriser outils yi nous avons ne pour poser diagnostic bi loolu day tax de plus en plus on fait des diagnostics fi nga peut-être euh, auparavant daaw mun a def Bon, tax ñu am ngeen am impression que dafa yokku mais yokkuwul trop et puis il y a quand même une comorbidité xaw ma nu ñu koy waxee ci wala parce que <laughs> euh, bu ñu infection seen défense immunitaire comme dans les infections dans les cellules vivant et le VIH dañuy def ay maladies opportunistes telles que la tuberculose loolu mooy joxe impression dafa yokku mais en fait le programme il marche très très bien mais lu ñu gën a craindre lu ñu def lu ñuy ñun lu ñu ragal euh, nous avons énormément peur de ce qu'on appelle les résistances les les tuberculoses multirésistants té loolu moom mooy mooy li nga xam ne mooy feebar yi nga xam ne euh, garab yi euh, kii jàngoro bi microbe bi xam ñu koy waxee moom dafa résister ci antibiotiques yu ñu utiliser de sorte que loolu moom mooy mooy mooy moom la ñu gën a craindre moo tax léegi moo tax ñu ngi vraiment kontaan ci nga xamné légui léegi dañuy def ay examen yu sophistiqués comme le jeune expert dañuy bu ñu gisee duñ jëlé euh, tëfliti nit ki nañ xool ndax feebar euh, ki jangoro bi mu ngi ci biir buñ ko sété bu paré ñu sét ki ban antibiotique le gëna a sensible comme ça ñu def traitement approprié. merci professeur Serigne Abdou Ba cardiologue. donc ñëw nañ fi danaka mat nañu euh, ñeen fukki médecin ak infirmier ñu ngi fi. Euh, spécialité médicale yëpp ak chirurgicale yëpp euh, ñu ngi fi euh, soo seetee cardiologue yi ñu ngi fi ak seen appareil électro ci cour bi gis ngeen dentiste bi ak seen camion ñiy faj nopp ñu ngi fi ñiy faj bët ñu ngi fi ñiy faj bët dañoo ànd ak sax koy joxe ay lunettes bu fekkee ne da ngaa da ngaa soxla lunette gynécologue yi ñëw nañu. Euh, radiologue yi ñëw nañu ñu ngi def appareil ñu ngi def euh, euh, échographie d'ailleurs am na benn malade boo xam ne bii tey jii cardiologue yi seet nañ ko mooy defal ko électro électrocardiogramme ñu yóbbu ko ci échographie bi ñu seet ni kat ci voie bi ci res am na problème ba ñu ngi koy waaj a évacuer Thiès ndax ndax sonn programme national de lutte contre la tuberculose ñoom ñëw nañu seen camion ngi nii ak seen tente ñu ngi fi def liggéey bu am solo. daanaka dèjà fii ak ci suba ak léegi rek seen nañ fi fukki nit yoo xam ne am nañu rajo mais ñeenti ñi am na ñoo xam ne ni euh, wóor nañu ni tuberculose ñaar ñi au moins tey moom war nañoo ñu ngi def tout pour que ñu commencé leent seen traitement donc loolu lu am solo la ndax ñooñu bu ñu nekkee ci biir population di sëqat di tifli dañuy daal disséminer feebar bi donc euh, il est important que ñu léegi aussi euh, xale góor yi ñu nga fële ak urologue yi urologue non seulement dañuy def consultation mais ñoom itam en plus dañuy dañuy xarfal xale yi donc euh, euh, ñoom seen programme kii am nañu juróomi table juróomi urologue yoo xam ne ñu ngi def circoncision donc loolu donc ñëpp ñëw nañu et puis vraiment euh, tout se passe bien pour l'instant. feebaru cardiaque ci Sénégal nan lañ ko mën a moytoo. waaw feebaru cardiaque ci Sénégal dafa euh, mi ngi gën a bari ndax nit ñi ñu ngi gën jëm mag ca xol. moteur la rek boo amee sa moteur oto bu fekkee ne dina daw na ñetti weer ba juróom benn weer il faut nga ubbi capot bi xool donc nit ñi li ñu war a def mooy aar seen bopp aar seen xol pour que ñu feebar yooyu bañ ñëw ndax feebar yooyu bu xasee ñëw dugg ba pare euh, yow euh, da ngay faju sa giiru dund sa giiru li ñuy def nag pour éviter ko mooy euh, di tàggat sa yaram xool li ngay lekk wàññi xorom si wàññi wàññi suukar suukar si wañi graisse bu graisse bu bari nit ñi nañu tox euh nañu tox légui aussi ku ci am diabète ko am eh, eh, eh, tension ko bu ko rek muy la muy law dalal xel aussi ndax stress bi kët kët ju metti jafé yi aussi mën indi donc lolu lepp bo ne sa xajna fièvre yoy duma wax du ñëw mais dina bu aussi di ngeen ko mais li tuberculose très souvent euh, ñàkk euh, ndool gi moo moo koy indi ndax day nit ñi dañuy sëxër di ko wàllaate yenn saa yi aussi surpopulation bi nekk juróomi nit mbaa juróom-benn nit bi benn néeg euh, kii di sëqat di jox kii kii di jox loolu lay tax feebar feebar bi law waaye li yàlla baax na ba nga xam ni am nañu programme national de lutte contre la tuberculose boo xam ni léegi ku sëqat lu mat 15 jours mën ngaa dem ñu seet la euh, defal la rajo dépister la et puis faj mi léegi c'est gratuit donc loolu am na te bu njëkk tuberculose boo ko amaan dafay am ay mais léegi vraiment ku ci teel a jóg ñu faj la nga wér waaw. Mamadou maire de Tasset. li sabab. waaw ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen sant donc euh, lii dañ ko def rek euh, parce que lu ñu war la santé da ngay xamante dafa bokk li ñu dénk. Mhm.

mais cette année il y yokku parce que dembu ci goudi bi ñuy def euh, organisé bi organiser planning journée bi je pense que ñu ngi toll presque ay 16 donc il y a presque une trentaine entre médecins et infirmiers donc donc da fay woné ni euh, at bu jot aussi nañ jéem a def djégo fi nak nit ñi amuñu moyen looloo tax journée yi dinañ ci détecter ay maladies yo xamanteni même après dinañ ko mën di suivre c'est le cas l'année dernière on a ci ay maladies graves yo xamanteni journée de consultation yi moo ñu permettre daaw ñu ñu ba léegi ñu topp leen ñeen ñu faj leen ba ñu wér mais ñenn ñi au moins détecté feebar nekk seen biir ba man di ko suivre mun na fay xam ne du wér mais mën nañ ko di ko di ko di ko di ko suivre donc looloo tax euh, ñuy def journée yi wax ni nag comme compétence transférée la fii bi ñu fiy ñëw aussi euh, daanaka benn poste de santé rek moo fi doon dox ñaar a fi nekk mais benn bi dafa délabré woon donc tabax nañ poste de santé boobu tabaxaat nañ yeneen ñaar muy ñetti poste de santé donc léegi am nañu quatre postes de santé li ñu manqué rek mooy centre de santé parce que commune bu mag alors comme commune bu mag la déposé nañu euh, il y a deux ans nous ngi demandé centre de santé bon, xamante ñun demandé un moyen état inshallah avec moyen ou commune bi mën na en charge le personnel médical donc accord bi rek la pour buñ ko amee dina gën a santé wu commune bi donc loolu rek moo tax ñu def journée de consultation yaakaar nañu aussi ren li ñëwoon daaw li ñëw ren dina ko bu ñu defee ñaari journée yi parce que commune bi dañ ko séddalee ñaari parti di ko commencé Tukulëër jëm ni ñooy ñëw fii tey bu subaa ñu jël Mbusnaax ak li ko wër foofu aussi y a 22 villages et hameaux yu nekk tout autour donc lii mooy euh, waral journée de consultation yi di yéen nag remercier yéen presse bi euh, yéen a jàllale information bi ba nit ñi ñëw particulièrement nos amis là donc jàll nañ information bi je pense Sud FM RFM donc looloo waral population jot nañu information bi bu ngeen xoolee ngoon gi sax la nañ gën a ñëw parce que l'année dernière dañoo waxoon aussi Tassette ak li ko wër ñu bàyyi village yi nga xam ñoo gën a sori ñu faju suba teel bu ko defee ñoom ñi dëkk fii bu ñu ñëw di xëccoog ñoom ngoon gi après ñoom ñu ñëw faju donc dañ ko organiser nga xam kenn du booxante donc gis ngeen aussi ñi fi ñëw euh, kenn du leen laajte professeur Serigne Abdouba di grand professeur cardiologue moom nag moo ma coordonné lépp donc dañ koy sant aussi di professeur euh, Mamadou pédiatre vraiment ñu ngi bu baax xarit lañu mais ñoom euh, boo dee xool bénévolat rek la def waaw li ci ëpp dañ jaamu aussi Sénégal donc ñu mel vraiment sont des personnes à féliciter donc maa ngi leen di ki son excellence le chef de l'État parce que tey qui lu mu mën rek ginnaaw yàlla moom moo dañ ñu

mom ngay noyé parce que nak nit ki la yëg nga yëg ko ca mom moo ñu yëg donc ñoon aussi tay ji profité nañ ci wacc ay kaamil juroom ñaari kaamil di ñaan jall jamm am commune Tassette waaye di ñaanal aussi réew mi di ñaan aussi élection yi di ñëw yalla def ci jamm ñu def ko ci jamm ñepp xam nañ ni Sénégal dëkku jamm la Sénégal des personnes responsables ñoo fi nekk ba élection jotee am nañ fi alternance amaat fi alternance waaye ñëpp gis nañ ni nous sommes un peuple mûr dañuy ñëw voté ci jamm ah élection yi jaar ci jamm 18 heures ki gagné gagné té yakar yaakaar na ni euh, son excellence monsieur Macky Sall lim fi liggéey mérito na quand même ñu jox ko réew mu mu égalé li mu commencé donc ñun ñëpp dañ ci wara japp jàpp jëlaat réew mi jox ko ko le 24 février au premier tour Inshallah. bu ko défé liggéey bu rafet bi muy def mu mën ko continuer commune yu mel ni Tassette ñun mom lañuy noyé vraiment mom lañuy noyé c'est pas parce que dañu and ak mom mais moko liggéey te li mu liggéey Tassette la def département de Thiès moom la def ci 14 régions Sénégal yépp ou 45 départements yi donc dañ koy ñaanal di ko wax fii devant la presse ñu ngi koy ñaanal pour mu jàll au premier tour ñu mën a continuer liggéey bu rafet bi mu def donc maa ngi leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah